dikkati na ni ndaw yi faatoo senegal ci géej gi doy na waa réew mi ko di jee ko xam le nee na xale yi ña ngay daanu daanu goo xam ne sakkan na bari na metti na tribune yéen a kaay naan kon daw ndóol gi ci réew mi rek ñàkk gi ci réew mi ak coono nga xam ne suñuy njiit teg nañu ko ñooñu ko teg critique yéen a ne ko ca wakaam fukki bakkan ak juróom ni ki démb daal dina fay rot te lépp bàyyeekoo ci gaal goo xam ne da doon dem barsa l'info yéen a kaay ne ko déet fukki bakkan ak juróom kay ñoo ci génn gaal ni ki démb tribune ne def lim gi fi mu ne ñetti téeméer fanweer ak ñaar ci bakkan yoo xam ne daal dinay rot diggante ndakaaru diggante ndar géej ak kafuntiin Antoine Félix Diome naan gaalug démb ga ma nga bàyyeekoo sa caaro caaroy l'info yéene kaay ne ko maa ëpp doole gaal gi kay booru trois heures du matin la bàyyeekoo caaro yi moom gaal ga nag jaar na yaraa laata muy daal di nërmeeloo wakaam teeree nag ci mosquée divinité bi la le témoin yéene kaay naan kon fukki bakkan ak juróom ñett moo ca ci liñ gisagum am na ca ñett ñoo xam ne nag génnee nañu leen ci gaal gi ñu mucc waaye fi mu ne sàndarma rek leen teg loxo ngir lanket le témoin naan maan gaal gi dibéer gii la bàyyeekoo woon caaroy façon yéene nag dem ca mangaan ga ca barsa wala barzak xale ya ëpp ci ñoom daal di mujjee ca barzak fukki bakkan ak juróom ñett lañ ca gisagum yéene kaay bi naan maan nee ñu ay garde côte lañ doon daw ba capitaine bi nag daal di mbëkk as xeer su soo xam ne ca la jaxasoo ga tàmbalee ca gaal ga gaal gay mel ni luy suux xala ya ca lab daal di ñàkk seen bakkan ñenn ñaa nga bàyyeekoo woon yëmbal ñenn ñaa nga bàyyeekoo woon pikin ñenn ñaa nga ñaa nga bàyyeekoo woon mbuur ñenn ñi bàyyeekoo caaroy fa gaal ga la le témoin naan man président Macky Sall de am na ci njàqare gu rëy rëy la soleil yéene kaay naan kon mook premier ministre kay fi mu ngi xalaat nag feem gu ñu mën a teg ngir xale yi toog libération naan kon ci kaddu nee ñu gaal ga dafa feesoon dell l'enquête quotidien naan kon nee ñu lu toll ci juróom fukk jàpp juróom benn fukk ci doomu aadama ña nga ca woon ñett dong ñoo ca mucc fukki nit ak juróom ñett génne nañ leen waaye àndut ak bakkan la ca des nag yéene kaay bi naan maan mi ci biir géej gi Sénégal fi mu ne mooy suux suux gi nag ànd ci ak ay doomam laaj ci daal di samp bari lool ndax nag kaaraange gi ñu teg ci géej gi ngir mu wàllu xale yi mat na ndax nag président Macky Sall li mu tegal ndaw yi ngir mu jox leen liggéey ANPEJ ak DEJ ñi ngi def seenug liggéey ndax nag fa ñu waree communiquer ña ngi fay communiquer geneen laaj moom moo di lan moo tax nag gars yi bu nu màngaanee ba ñëw ñu leen di toroxal seen biir réew le peuple naan maan en tout cas ña nga xam ne ñooy yóbbu xale yi Barça wala Barsax fi ne daal kun ca jàpp dana métti ci yow wala Antoine day ma ngi yoo xam ni maar day taali bugaan géy dana ci turbine yéen a kaay ne ma dara tëkku gi tëkku gi coow li coow li ñoo ma faatu bakkanu xale yi kenn mënu leen ca génnee bugaan géy dana ne ma réew mii di Sénégal lu tollu ci daanaka ñaar kilo kilogramme ci or génne nañ ko Kédougou ci 2022 gii la amee France njiital gëm sa bopp naan Sénégal am na or Sénégal am na zircon Sénégal am na phosphate ñu koy caxat caxatee ci anam woo xam ni maar day taali xale yi nag buñ leen nee toogal ma ni la yedd leen yërëm leen ko gën ku leen juróon it bugaan géy dani ne yërëm leen man mandat naan man géye ngay sayati di daanooti rab ci kaw gouvernement gu réewum Sénégal naan leen xam ngeen coow li coow li mooy lan ubbi enquête ci xale yi màngaani ubbi enquête yi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy suñu meññeenteef gii moom moo ko gën ministère des mines ni la yorin gi baaxul bugaan géy tadi ne leen képp koo xam ne ma nga fa ca njiit la ba ca cappaandaw ga nan leen enquête nag xool dëgg-dëgg nan leen yore suñu meññeenteef gi ubbi ay l'enquête ci ñoom ci gépp personnalité goo xam ne yaa ngi seere mani la suñu ressources naturelles yi ndax boo demee ca Kenya ba Abadola dem ba Makko dem ba Tomboronkoto dem ba Jogo dem ba Tayba Njaay dem ba Mbooro dem ba Ndendori Xunaare ak yeneen gox goxaat yoo xam ne ñi ngi fii ci réew mi suñuy meññeenteef manqué wul ci réew mi waxtu woo xam ni moom ministre des mines ci boppam ñu ngi koy tuumaal ne fii ci ab sous villa R plus 2 ma nga fay def ay documents yoo xam ne maar day taali di jël ay permis d'exploitation d'or di ko jox ñoo xam ne xel teey na ca daal ñii xam le it ñan ak ñan ci mbir mi sunu ndaw yi moom ni ñuy deewee ñàkk na kersa métti na waaye tam jéggi na dayoo lool l'évidence yéen a kaay naan dara politique bi nga xam ne tegal nañ ko ndaw yi moom moo baaxul xale yi nag gisutuñu seen bopp ci réew mi ñu daw ca barza wala barzaq lii la du leneen lanket naan kon réew mee métti ba ci busata yaa ngi ci réew turbine yéen a kaay ne kon ndakaaru jël joob sàngomar ci boppam mooy fatt fi mu ne Walf Quotidien naan kon kuy wax fatt kay da nga demul Kër Masaar fi mu ne ndox yaa ngay taa métti ci ñoom ba maar day taali ñuy dund ak mbënd goo xam ne métti na lool kaay naan maan ONAS moom ma ngay dalal xelam ca la nga xam ni moo am ca Touba xam leen ni nag opération fast track lañ fa daal di dugal ba démb démb yéen kaay bi naan maan li jëm ci yoonu grande mosquée bi ba ci l'hôpital bu Ndamatu wala it kanamu mairie ba amul benn ndox Dakar Times naan maan ay canalisation yu tollu ci ñaari mètre ci guddaay waaye tam ñetti mètre ci yaatuwaay niki noonu ay bassin de rétention la ONAS indi ca Touba ngir nag xeex lépp loo xam ne mbënd la ca gox boobee tribune yéen kaay naan maan Amadou Ba démb ci présidentielle bu Ndakaaru la mu wax moom mooy Ndakaaru ndakaaru ci boppam ku ko ñàkk daanaka yaa ngi jëm ca ñaareelu wërngël ba ndax ñeenti nit ñoo jël ci réew mi kenn ki mi ngi yeewoo ci ndakaaru 24 heures yéen kaay naan maan waxtu woowu kay ab lanket xamle na ni fii ci Sénégal nag bu ñuy manifester ay munitions yi nga xam ne nasaraan sa dëkk ca France bu ñuy dem ca àll ba moom la ñuy jëfandikoo moom la ñuy jëfandikoo ci ndaw yi jël nag yooyu la ngànnaay andi ko ci réewum Sénégal di ko tuy tuyal ndaw yi maître Cheikh Khoureychi Ba avocat bu Ousmane Sonko ci turbine yéen na daal dina yeewu ci coma ak juróom ma ngi ca doon noyyi source a naan maan moo taxit ni ki démb ña ngi ko doon ziar militant yi nag dem bay laaj zam-zam direct news moom sampub laaj ndax fi mu ne yoonu Sénégal amul gàcce ci li nga xam ne mooy mbiruk Ousmane Sonko li ndax nag coow li coow li mooy Ousmane Sonko dañ ko tuumaal sàkku 2021 ba nii Ousmane Sonko gisul kaso saa bu demee wuy ji ci cëggal guyam la koy defee loo xam ne direct ni ma mësta am ci réewum Sénégal boobaak léegi nguuru Sénégal am ay jafe ngir jàpp Ousmane Sonko mi moo ne day luy xeetu tuuma teg nañ ko Ousmane Sonko appel à l'insurrection tuumaal nañ Ousmane Sonko trouble à l'ordre public tuumaal nañ Ousmane Sonko dem sax bay dëkk autorité bi coow la mooy nag ndax Ousmane Sonko dafa wuutee sa Meïssa Wade xalifa Babacar Sall lan moo tax nguurug Sénégal gannaaw ba ñu tëjee Ousmane Sonko nanguwul jàpp Sonko moom rek mooy ko xam ne dañ ko atte nekku fa ñu xam fa mu nekk te takk der yi mënuñu koo jëli yéene kaay bi naan maan situation bi tax na ba attekat yi am gàcce ci réew mi laaj ba ñu samp kay moom moo di mbaadu nag dafa am loo xam ne ab noo di la ci coowal